force républicaine maa ngi ñëw lii déclaration bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko xaatimandoo déclaration bi nag dina ñëw ci ñaari ponk dina ñëw ci wàllu mbas ñi nga xam ne moom la ñuy wax Covid 19 mais dinañ ñëw également ci wàllu révision liste électorale bi balaa ñu ciy ñëw nag balaa ñuy àddu ci loolu ngeen may ñu ñun waa task force ñu jaale. askanu Sénégal ndax dafa am suñu ñaari kilifa yu tedd yoo xam ne dañuy wax ci liggéey muy suñu papa suñu sëriñ suñu kilifa xalif général Abdoulaye Thiaw Laye bu Laayeen ak suñu papa suñu kilifa xalif général sëriñ Abdourahim Seck bu Canaba kon yàlla na suñu borom yokk seen leer tas mu ci seen barke ñu ngi jaale réew mi yépp di jaale président de la république kon ni ma ko waxee woon parce que force républicaine bi taxaw na seetlu ci wàllu Covid 19 seetlu biñ ci def seetlu nañ ci wàllu mbas mi bi mu tàmbalee ba léegi fi mu jaar yëpp variant yi ci am yëpp maanaam première vague bi bi mu ñëwee ñi ci gouvernement bi taxawee deuxième vague bi bi mu ñëwee ñi ci gouvernement bi taxawee troisième vague bi nga xam ne moom la ñuy wax delta variant également. nan lañ ci taxawee te bu ma nee gouvernement ci bopp bi président Macky Sall moo ci nekk gouvernement nekk ci autorité sanitaire yi nekk ci autorité déconcentrée yi nekk ci réew mi ci boppam nekk ci kon c'est toutes les forces vives de la nation naka la ñu taxawee ci bi mbas mi tàmbalee ba léegi loolu lépp nag biñ ko saytoo dañu gis ne stratégie bi ñu am saa bu amee lu xew rek day daal di méngoog moom bi ñuy wax nañu adopté mesures barrières yi nga xam ne dafa war a ñëw ci restriction yi moo xam limitation transport yi moo xam port du masque obligatoire couvre-feu yeeg yépp dafa am ñun ñëpp ñu ci taxawee woon ba tey ci variant bi liñ ciy gën a ndokkeel président Macky sàll ak gouvernement ak réew mi mooy campagne de vaccination bi nga xam ne taxaw nañu ba tey ñu toll ci lu ëpp million ak lu teg ci ay doomu Sénégal yoo xam ne ñàkk nañ leen te campagne boobu war a continuer ndax fexe nañu ba am ay commande yu am solo yu fi ne mais également yeneen yoo xam ne def nañ ko war nañ ñëw te tey boo xoolee ci àdduna bi wërngal këpp daanaka lu tolloog ñeenti million ak lu teg ñàkk nañ ci seeni bakkan tey rek ñun Sénégal toll nañ ci lu ëpp junneeg juróom-benn téeméer yoo xam ne suñu ay mbokk yu ñàkk seen bakkan ça veut dire que mbas mi du caaxaan lu réel la mais taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci aussi euh, dina dalal suñu xel ne bu ci ñëpp jàppee kenn ku nekk def ci humilité kenn ku nekk def ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci yow en tant que citoyen suñu borom mën nañu dimbali ba nga xam ne dinañ ci am ay résultats yu mucc ayib. moo tax ñi nga xam ne aussi ñi ngi ci traitement yi ñu ngi leen di ñaanal seen suñu borom fëgg seen bopp mu gaaw a gaaw mais également personnel de santé bi ñun en tant que sénégalais parce que force bi jàpp nañ ne war nañ leen dimbale ñu def ci seen liggéey ni mu gën a baaxee ni mu gën a rafetee kon loolu euh, seetlu nañ ne loolu yëpp buñ ko waxee dañu war a euh, sargal bu baax a baax président ndax taxawaay bi nga xam ne moom ak gouvernement ak mbooleem réew mi liñ ci am suñu na nattee ni ci Sénégal taxawee ak ni feebar mel ci àdduna bi war nañu jàpp ne suñu gënee taxaw dinañ ci am ndam comme ni ñu amee woon ndam ci yeneen euh, variant bi ci des nag mooy wàllu révision ci exceptionnelle liste électorale loolu nag dafa ñor lool waa task force républicaine ndax ñëpp xam nañ ne ci wàllu élection la ñi nga xam ne ñoom juuj njaaj rek moo leen dañu jàpp foofu la ñuy jaar pour dugal li nga xam ne moo war a nësaxal xelu nit ñi mais dañu tollootul foofu ndax réew moo xam ne saa yu ne mu def alternance ci élection tey li nga xam ne constaté nañ ko ci Sénégal yëpp mbooleem commission administrative yi à quelques exceptions près ñi ngi fonctionner correctement xale yaa ngi dem di inscrire correctement citoyen yaa ngi dem di inscrire correctement kon lu ci jar dugal ne suñu ay nit bëgg nañu bindu mais dañ leen di indil ay jafe-jafe pour ñu am kayit yi ñu war a bindoo ñu mën ko bindoo lu mel ni bu ñu jëlee certificat de résidence tey nee nañu ci li ñu dégg dafa am ñu ne seeni ñoñ dañ leen di bundu xataal pour du ñu am certificat de résidence mais certificat de résidence ni ñu koy laaj ku dëkkul ci gox bi ngay pour voter tey bu ma demoon liberté adresse bi nekk ci sama carte d'identité nekk liberté un wala deux wala six bu ma demee kenn du ma laaj certificat de résidence damay ñëw ci commission bi fekk fa waa Sénat fekk fa représentant wu parti politique yépp ndax loolu code électoral moo ko jox képp koo xam ne parti politique légalement constitué la sa ndaw daf la fay toog ndaw maire bi ci boppam doonte dafa bokk ci parti politique mais dañ koy jàppee comme autorité ndaw maire bi ci boppam toog boo ñëwee indi say këyit ñëpp ay say kon bu fekkee ne fa ma dëkk laay wut fu ñu ma biddu soxlawul certificat de résidence waaye nag boo ma bëggee jëlee kulikon ne dañ may indi ci beneen gox su boobaa faw ñu ne la te dañ lay jox présomption dañ la naan dëgg la ndax tuxu am na fu ne indi sa certificat de résidence te ay la yëwén bu fekkee ne ca gox ba nga dëkk moom jàpp nañ ne certificat de résidence waroo ci am problème ndax boo demee ci sa délégué de quartier dina la jox sa certificat de domicile ndax délégué bi mooy dëggal ndax kii fii la dëkk wala dëkk fi kon li Benno Bokk Yaakaar di wax mooy bëgg bëri dinañ bëri bañ bëri danañ bëri ndax nag Sénégal réewu démocratie la réewu yoon la te ñun acteur politique yi ñun njabootu président Macky Sall li ñu sant mooy li nga xam ne démb ak bërki démb suñu papa yi suñu maam yi suñu yaay yi suñu tante yi dañ ko def réewu Sénégal encadré ay doomam ñuy jàng ba toll fii ñu jàng fii ñu toll li ñu war mooy ñu bay suñu waar ci lépp loo xam ne day saxal stabilité si lépp loo xam ne day saxal jàmm ci réew mi ndax loolu mooy vision président kon tey li Benno Bokk Yaakaar bi wax mooy bu ñu maanaam bu ñu kenn jaay ne ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañu bëgg nit ñi nelaw ba yàndoor li ñu bëgg mooy di leen indil fitna suba ngoon guddeeg bëccëg pour que kenn du tal dara loolu dafa war a jeex ci réew mi ndax nag y a defi y'a d'autres enjeux kon tey képp ku bëgg naxal saayal processus bi nga xam ne de révision exceptionnelle bi nga xam ne léegi mu jeex Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ñaan ay ñoñom nañu continuer ñoom ci liggéey bi ñu nekk mooy nekk ci terrain bi wax ak askan yi jéem leen ñaax ci ñu accomplir seen devoir citoyen leneen li ci des mooy ci wàllu ci wàllu peut-être mot d'ordre ak ñaax yi nga xam ne euh, ñun en tant que coalition politique ñu ngi koy def jëmale ko ci suñu ay ñoñ mooy nañu àndandoo gën a jàpp organiser liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def ngir ndam yi nga xam ne ñu ngi koy am depuis 2012 élection présidentielle 2012 Benno Bokk Yaakaar am na ndam nga dem référendum am nañu ndam nga dem législative 2017 am nañu ndam nga ñëwaat présidentielle 2019 ñu am ndam kon rien n'empêcherait que incha allahu rabbi 2022 bii ñu jëm pour les élections territoriales teg ko ci kaw liggéeyu politique de terrain teguñu ko ci leneen lu dul terrain bi ñu ne subaak ngoon guddeeg bëccëg te gis ne les jeunes répondent massivement à l'appel de la paix de la stabilité et de la responsabilité loolu la ñu gis moo tax ñenn ñi tiit parce que dañu foogoon ne buñ ne xopp rek ndaw yëpp dañuy dem bindu mais ndaw yi nga xam ne euh, kenn mënul jaxase seen xel yi xam nañ li ñu def ñu ngi jug nànk di dem nànk di bindu nànk compte non tenu nag ñi nga xam ne dañu yor seen carte d'identité ba pare parce que la carte d'identité kenn waxul ne boo amulee dix-huit ans rek doo ko am mën nga am carte d'identité à n'importe quel moment dans ce pays là kon xale yi jël lañ seen carte d'identité bindu ji nañ te xam nañ fan la ñu war a nekkoon